loolu nag liñ ko mën a laltaaye mooy xamle rekk ne suñ borom subhanahu wa bi mu nu sàkkee wàcce ñu ci kaw suuf danoo sant ñu jaamu ko bi mu ñu santee ñu jaamu ko it dañoo sant ñuy def lépp loo xam ne dina tax nu mën a nekk ci kaw suuf muy kon fexe jëmmale kanam fexe dundal fexe développé àdduna bi wa anshaakum min al ardi wa staamarakum fiha loolu nag nga xam ne mooy moo tax suñu boroom wàcce ñu fi ngir ñu jaamu ko ak taxawu àdduna bi développé ko ba man fee nekk loola day loo xam ne kenn ku nekk danga cay def sawaar danga nga cay bay sawar waaye dafa laaj boole ay xalaat boole ay doole ngir man koo def kon dundal suuf si développé ko laaj na dimbalante laaj na jàpp lente ci di ko sottal mu mel ne loolu moo tax jullit yi di taxawal ay projet projet yoo xam ne mën nañ ne def lu baax moo koy tax a jóg dimbali nit ñi moo koy tax a jóg mu doon projet yoo xam ne dana jàppale doomu aadama yi ci seen aajo yi nga xam ne mënuñu koo fajal seen bopp rawatina ñi néew doole ñu mën koo fajal seen bopp bu ñu tollee ci jamono joo xam ne nag yitte yi day gën a bari aajo yi day gën a bari nit ñi di lott ci fajal ko seen bopp ñu baree bari boo am jafe-jafe ci fajal seen bopp seeni aajo ci wàll yu bari yi ñuy soxla ngir mën a jaamu yàlla yi ñuy soxla ngir seen wér-gi-yaram yi ñuy soxla ngir seenum njàng yu baree bari mënaluñ ko seen bopp ca it sax ñi jiite réew yi sax lott nañ ci faj aajo yi nit ñi niñ ko niñ ko bëggee amuñu dooleem wala léeg-léeg sax duñ ko bëgg ndax aajo yooyee xëy na day jëm ci seen wàllu diine ca mën naa am ñoom lañuy am duñ ko bëgg a jëmale foofa loolu kon day laaj jullit ñi di boole seeni doole léeg-léeg di defar di defaral seen bopp seeni projet yoo xam ne ñoo koy jéem a seen bopp ngir man ci di faj seeni aajo waaye dañuy seetlu ne projet yooyu ñuy taxawal muy naal yooyu ak simbu yi lu ci baree bari day am ay jafe-jafe ci sottal ko léeg-léeg danañ sottal lu bari ndax jullit yi bari ñoo ko sottalal seen bopp waaye it bari na yu ñuy naal di ca am ay jafe-jafe jafe-jafe yu bari nag waaye da cee bokk da ca am jafe-jafe bu gën a fës léeg-léeg mooy koom wala alal ja a sottal sémbuwoo ak naal ba léeg-léeg day jafe léeg day jafe léegi nag kon waxtaane yi ñuy naalal lislaam di ku ko sémbal naka lañ koy financé yan yoon lañ mën a jaar ba di ko financé loolu mat a waxtaane la ndaxit nag mën nañ ne koo fi gis rek ñu baree bari am nañ ay naal donte man man mën naa ëppante na projet yi mën naa wuute mën naa projet bu mag mën naa projet bu ndaw waaye ñu bari dañ koy am soxla woo xam yoon yan yoon lañ koy jaar ba mën koo financer loolu nag ngir waxtaane ko dañ koy tënk ci tomb yi Sëñ Abdou Lahad junj léegi mooy dëgg-dëgg euh, mashruu islami walla masharih islamiya mooy projet islamique yi nga xam ne ay naal la ak i sémbu buñ ko waxee lan lañ ci war a jublu ak naka lañ ko war a mën a financer ak nag buñ njàngaleem lislaam njàngaleem Sëriñ Tuubaa moom yan buntu lañ ci indil la ñuy daaneele rek mooy xam yan condition yan charte ci lañ lañ war a bàyyi xel war a sàmmanteeg moom ngir macharia islamiye yi ñuy am ñu mën koo financer kon ci xamle al masharih al islamiya mën nañ koo xamlee ne naal bi nga xam ne nit ki daf koy naal jublu ca rek def lu baax muy al amal al xayri nga xam ne dafa doon suñ borom subhanahu wa digle soññee ci yonent bi sallallahu alayhi soññ ci jullit bi muy war a jéem a def lu baax luy amal njariñ nit ñi kon bépp naal boo xam ne loolaa ko tax a jóg bépp sumb wala sémb boo xam ne looloo ko tax a jóg nga xam ne ki koy def jariñ mbindéef yi moom la jiital ak wut ngërëmul yàlla loola mën nañ ko tuddee mashron islaam yi ki nga xam ne dafa am yéene defar daara ngir dimbale doomi jullit ñi ngir ñu mën a jàng loolu mission islaam yi la ñi nga xam ne dañoo jóg ne dañoo bëgg a wut ab fajukaay boo xam ne ñi néew doole dañ leen cay mën a faj loola dañ koy tuddee mission islaam yi ak yu mel noonu nga xam ne jëf ju baax lay doon ju amal njariñ mbindeef nit ki di ko def ngir am ngërëmu suñu borom solo loolu nit mën na koo def waaye ab mbooloo mën na koo def muy ab organisme wala mu assasa walla jamiya wala ab daayira wala kilifa lu mën a doon mashron islaami la ndax li nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha xafizahullahu wa ayadahu wa nasarahu sémb na ko fii tey mën nañ le mashron islaami kabir projet bu mag la bu lislaam ndax la ko tax a jóg mooy dimbali doomu aadama yi rek ci seen wàllu xam kon mën nañ ne lépp loo xam daal dafa ñëw ngir jëfe ndigalul suñ borom ci def lu baax luy jëriñ mbindeef yi loolu lañ koy tudde mission te dafa doon lu am solo nag ci diine diine du rek julli ak woor ak natt azaka ak dem màkka ak yu mel noonu ak ñaan loolu lépp ci diine ji la bokk waaye diine ji def lu baax luy amal njariñ nit ñi amal njariñ mbindeef yi da am doole lool bu ñëwee ci alquran bari na fu suñ borom subhanahu wa taala di soññi jullit ñi ci ñuy def lu baax yaa ayuha alladina amanu rkau wasjudu waabudu rabbakum wafaalul xayra laallakum tuflixuun gis nga suñu borom bi mu ñu diglee na ngeen di na ngeen gëm yàlla na di sujjóot na di julli na ngeen jaamu seen borom waaye na ngeen di def lu baax na ngeen di def aw yiw mën naa am ngeen texe suñu borom ci soññ bi ñuy soññ ci def lu baax mi ngi ñuy xamal ne dara matu cee xeeb ndax lu ci waaye def lum néew néew suñu borom subhanahu wa taala dina ko ko fay fa man yaamal mithqaala zarratin xayran yara kon lu waaye def lu ci lu baax suñu borom subhanahu wa taala dina ko fay waaye suñu borom da caa dolli di ñu ñaax ci ñu di ci njëkkante di ci rawante di ko gaawe fastabiqul xayraati ilallaahi marjiakum jamian fa yunabbiukum bi ma kuntum fiihi taxtalifuun suñu boroom ci soññ gi ñuy soññ ci def lu baax luy jariñ mbindéef yi dañu ci dañuy xamal ne suñ bopp lañ koy defal loo def ci lu baax di ko defal nit ñi sa bopp nga koy defal ndax njariñ la da jariñ fii ci àdduna walla boole ci jariñ la ëllëg wa ma tunfiqu min xayrin fa li anfusikum wa ma tunfiquuna illa ibtigaa wajhillah wa ma tunfiqu min xayrin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun kon loolu mooy li ñu alquran di woo ci ñuy def lu baax ndax lu ñu def ci lu baax mi nit jariñu ci loola dinañu fekk ëllëg barzaq ak fii ci àdduna moo tax suñu boroom di wax di ko tudde sax bor maanaam lebal suñu borom subhanahu wa taala te ku ne xam na ne suñu boroom subhanahu wa taala am nag fay wa aqimu salaata wa aatu zakata wa aqridu llaha qardan xasana wa ma tuqaddimu li min xayrin tajiduhu inda allahi huwa xayran wa ajra kon lépp loo xam ne nit ki def na ko na xam ne boppam la ko defal te yàlla moom ku ko lebal dina la fay kon woote yooyu nga xam ne alquran daf koy woote ci ci def lu baax kon képp koo xam ne jóg na ngir wuy wuy woote boobu ne da def loo xam ne mbindeef yi danañ ci jariñu kon kooka la muy def mashron ba muy teg ca teg ko ci wooteb lislaam boobu day nekk mashron islaam yi te loolu noonu ko alquran jàngale woote ji soññee ci ni la ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam defe woon yonent bi waxoon ne jullit bu nekk war naa saraxe ñu ne ko bu ko amul mu ne na dem liggéey jëf loo xam ne dana ca mën a jariñu man caa saraxe ñu ne ko bu ko mënul mu ne na fekk ku am aajo mu dimbale ko ku nekk ci coona mu jàppale ko ñu ne ko bu ko mënul mu ne ah nay digle lu baax di tere ab safaan ñu ne ko bu ko mënul mu ne kon na fexe ba bañ a lor kenn loolu lépp sarax la kon daal nit ki fokk war naa amal njariñ mbindeef yi mën nañoo wax ne noonu yàlla subhaanahu wa taala diglee ñuy def lu baax noonu la digle ñuy dimbalante ci def lu baax loolu ñu ciy jàppalente wa taawanu al birri wa kon def lu baax luy jëriñ mbindéef yi ak dimbulente ca suñu borom subhanahu wa taala moo ñu ko digal waaye yonente bi alayhi salaatu wasalaam digal nañu ko jàngal nañu ko ne ñu jullit ñi dañoo war a mel ne ab tabax boo xam ne dañuy jàppalante al muminu lil mumini kal bunyaani yashuddu baaduhu baada xamal yonent bi xamal na it ne nit ki lu muy def ci lu baax bu ko àndeek mbooloo mi day gën a baax wax ne barkeb suñu boroom mi ngi ànd ak mbooloo mi yadullahi ma jamaa suñu boroom ndimbalam day ànd ak mbooloo mi mën nañu wax ne jëf ju baax jooju nga xam ne lislaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale na ko alquran soññee ci mën nañu Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu dëxëñ na ko ci biir al xidma loolu mu tuddee xidmatul muslimin moom la ko tudde te loola boo demee ci masaalikul jinaan ma nga cay wax ne lu ama am njariñ la ndax ëllëg yowmal qiyaam bu ñëpp jàqee ñëpp tiit ñi nga xam ne dañ doon liggéeyal jullit ñi ñooña moom tiis wa ak njàqare la dana leen ump ndax ñoom dañ leen di woo bañ wuyu ñu ne leen yéen dugg leen àjjana yàlla nañ ci yàlla boole mu ne wa qiila in xadara yowmul baari wa duriba siraatu fawqa annaari wa kaabadal waral jawaa wal gumma naadaa munaadin ayna ahlul xidma lil muslimiina fa ajaabu ajmain fa yumaruuna lil jinaani musriin kon ñu gis ne defal lislaam ab sémb ab naal boo xam ne ngërëm ngërëmu yàlla nga ca jublu loolu lu lislaam soññee la loolu lu lislaam euh, woote la kon képp koo xam ne jóg na ci yoonu yéene jooju nga lal ko la ngay def day nekk islaam islami day nekk projet islamique waaye nag buñ nee projet islamique kon ndekete dana am ay melokaan dana am ay is dana am lu koy caractériser mën nañ koo waxee noonu mooy la ca jiitu ca danañ ko déggee ci wax ji léegi mooy na nekk loo xam ne yéene ja day sell sémb ba ngay sémb ñaar na ca daje na amal njariñ jullit ñi ca na yéene ja rafet na yéene ja sell mbir mi lu mu baax baax yéene ja koy lal moom la suñu borom subhanahu wa laa di xool innamal amalu binniyaati kon ka yéene nit ki mën naa ñëw sémbu ab sémbu bu yaatu bu rëy bu bari njariñ lool waaye nag moom jubluwu ja suñ borom xëy na mën na caa jariñu ci àdduna waaye yowmal xiyaam moom la ko cay jariñ nag mooy yéene jëm moo tax ki ñëw ci dëkk masalan def fa projet bu mag boo xam ne waa dëkk bi danañ ci mën a jariñu waaye la ko ca yitteel mooy bis bu ñu demee ba soxla wote waa dëkk bi woteel ko projet bu baax la waaye yéeneem moom mooy moom am na lu mu bëgg bëgg na bu ca àggee waa dëkk bi jàpp jàppale ko ca loola kon mashru' bu baax la projet bu baax la waaye nekkul projet islamique moom ndax lislaam moom dafa bëgg la ngay def yàlla jiitu ca leneen loo njëriñ lu ca mën a topp topp ca waaye na ca yàlla jiitu ba noppi kon li ngay def ngir bëgg daraja rek duñ ko tuddee mashron islamique projet islamique déedéet li ngay def ngir bëgg pouvoir wala leneen kon duñ ko ko jàppee waaye kon lañuy ñuy jàppee mashron islami mooy la nga xam ne ña koy def bañ koy def jariñ mbindeef yi moo ko tax waaye sàkku ngërëmul suñu borom subhaanahu wa ba ca des mooy la ca topp mooy li mooy mashron islami buñ ko waxee it mooy naal yi ñuy naal lislaam bari na bari na ay forme bari na ay melokaan ndax day dellu rekk ci yittey nit ñi ak aajoy nit ñi lañ aajowoo nga ñëw sémbu ca sémb bu leen cay jariñ ca wàllu googa loola day dugg ci lii ñuy wax mooy naalub lislaam ndax nit ñi am nañ aajo yoo xam ne dafa jëm ci seen dunduk yaram seen lekk ak seen naan ak seen faju seenu col fu ñuy dëkkee lépp loo xam ne projet la bu dugg foofu loolu day bokk ci projet islamique bu fekkee ne ñaari condition yi ma njëkkoon a wax daje na ci léeg-léeg nit ñi am aajo yoo xam ne ci seen wàllu xam-xam la jëm seen wàllu xel la jëm mooy lu jëm ci ya jàngal leen yar leen ngir seen ëllëg loolu yépp la ciy bokk am na ñoo xam ne sax lañu soxla woo du lekk du naan waaye xel mu dal seen xel mën naa jaxasoo nga dalal seen xel wala ñu nekk tiitaange nga ñëw ngir dalal seen njàqare loolu lépp dafay dugg ci luy jariñ doomu aadama comme anam gum mën a doon rek nit ki sémb ba muy sémb ca nit ki di ci jariñu ak anam gum mu ca mën a jariñoo te yàlla tax kon day bokk ci mashron islami nga xam ne kon ku ñëw ci ab dëkk fekk ñu am aajo aaj ju mu mën a doon nga jàpp nga nga fexe teg loo xam ne dana faj aajo yooya loola day dugg kon ci lii ñuy wax ku ñëw defal aw nit nga defal leen usine boo xam ne dañ cay mën a liggéey ah man caa jariñu man caa tedd loola yaa ngi liggéeyal lislaam loolu dañ koy dugal ci mashron islaam yi ñëw defal leen tool boo xam ne ñoom ñëpp danañ ca mën a bay di ca jariñu loolu yëpp day dugg ci maçon islam yi waaye ñetteelu liy màndargaal ne projet bii kat projet bi lislaam la mën nañ ko koo jàppe mooy la muy yëngutu day nekk lu dagan nag la muy yëngutu day dëpp day nekk lu lislaam nangu la muy def day nekk lu lislaam nangu kon lu lislaam gërëmut moom doo doo mënoo ko caa mënoo ko caa liggéeyal mënoo ko caa liggéeyal kon ku ñëw fekk ñoo xam ne lañuy ñuy du lu lislaam gërëm nga leen cay jàppale mënoo ne kon dama ciy liggéeyal lislaam loolu mënta nekk léegi nag bu ñu xamee kon lan mooy projet islaam islamique ca muy lu baree bari wax naa léegi ne ay ay kuréel danañ ko yëkkati daayira Muxaddamatul Xidma mën na ne am naa projet boo xam ne damay sémbu barab bu yaatu boo xam ne dama ciy def dama ci takwin damay former ay imaam former ay noddukat mu doon barab boo xam ne la ca war a nekk lépp da cay nekk ma di ci dimbale jullit ñi wala di leen ci former ci nu ñuy saytoo nu ñuy suturaale ñu wàññiku loolu lépp loolu dañ koy daal jàppe ab mashron islamique projet islaami bu nit ki ne mankat kat euh, euh, village bi ma dëkkee maanaam euh, dëkk dëkk bi ma dëkkee amuñu jàkka wala amuñu daaray alquran bëgg naa def fa daaray alquran ngir jàppale doomi dëkk ba ñu mën a jàng alquran mën a xam lu seen diine loola mashron islaam yi lay doon léegi nag yooyu ñuy am léeg-léeg da gis koo xam ne dana ko sémbu mais du mën a dem léeg-léeg ab daayira wala ab mu assasa am ab sémb sémb yu mel loolu mais sémb ba du mën a dem du mën a sori ndax la koy sottal duñ ko mën a am te moo ne lislaam day bari na lool yoon yum tëral ngir liñ koy naalal ñu mën ko caa financé loolu bari na bari na lool kon yooyu la ñuy ñëw tudd ci yenn yi ci ëpp solo waaw ndax yoon yi mën a financé moom bari na am na ci loo xam ne ci nit ñi lay dellu am loo xam ne ci nit ki ci boppam lay dellu loo xam ne ak ci société bi lay dellu ak loo xam ne sax ci pouvoir lay dellu état ci boppam ci ni ñi war a mën a financer ay projet waaye xëy na comme projet islamique la ñuy wax la cay wàllu état ak mbiri banque yaag yooyu moom mën nañ koo teg nele bañ cee bañ koo dugal ci suñu suñu waxtaan ndax loolu mooy beneen beneen beneen domaine lay doon waaye ñun li nga xam ne lislaam tëral na ko ci ay yoon yoo xam ne jullit ñi bu ñu amee seen projet war caa mën a jaar ba financer ko loolu la ñuy la ñuy waxtaane loolu ba ca njëkk mooy asaka asaka moom dafa doon loo xam ne li ko tax a jóg mooy dimbale ñi nga xam ne dañoo néew doole boo demee ca masaarifu zakat lil fuqaraay wal masaakin moo ca jiitu waaye yëmu ca wa fi sabilillah lépp loo xam ne kon lu am njariñ la loo xam ne dana dimbale nit ki ci ay coonoom wàññeeku war nañ caa mën a dugal asaka waaye nag loola day fekk kon asaka ja ñu nos ko nos goo xam ne dina mën a jëm foofa dëgg la jullit yi ñi ngi génne asaka bu baax macha allah waaye niñ ko war a génnee nag des na ci ñu baree baree bari ndax ñi ciy def ay gëstu ak i jàngat ñi ngi wane ne ni ñuy génnee asaka buñ ko ni génnee woon biir jullit ñi du am ku ñàkk maanaam alamul islaam yi li ñuy war a génnee asaka bu ñu ko ni génnee woon ku ñàkk dootu am ndax bu ñu waxee li yi war a yi asaka war a mën a génne par at loolu kenn xamul nu mu te boo ko xoolee kenn ku koy génnee doo ko yëg ndax ni ko lislaam tërale 2,5 pour cent bariwut waaye ñi ko war a génne ca bari ñoo ko dul génne ni ñu ko war a génnee ñëpp duñ ko génne ña koy génne it nañ koy doxale day tax jubluwaayu lislaam ca loola maanaam nam war a mate du ni mate nit ki nag moom bu génnee azakaam wàcc na bu génnee wàcc na léegi léeg nag mën ngaa def loo xam ne yow saw loos na ci waaye njariñ la mu war a am du ko amee na mu war a ko ndax ki génne azakaam tey def ko ay ñaar téeméer wala ñeenti téeméer séddale ko dëgg la def na lu baax génne na asaka ñam ko joxit ku mu ko ca jox ñaar téeméeri mën na laa amal njariñ kenn du ne amul njariñ waaye léeg-léeg ña ko waroon a dajale bu ñu ko dajale woon am na nuñ koy mën a dimbulee ñoo xam ne dañuy jóge ci laaj asaka balaa déwén ñoom ci seen bopp ñuy joxe asaka nga xam ne kon mooy xeex ak ñàkk asaka mën na ko waaye ci kaw nañ ko war a nose ci kaw ndax su fekkoon ne ci biir asaka ñañ ko waroon a séddale ñu ñi néew doole tegal nañ leen projet boo xam ne ci asaka ji lañ ko financé ñoom projet boobee ñu di ca mën a jariñu ba tàggalikoo ak ñàkk loola buñ ko a moo gën loolu buñ ko mënoon moo gën waaye nag léeg-léeg nos gi ginnaaw amul lu ko nos kenn ku nekk yaay maanaam ni mu dalee sam xel nga koy génnee yaay xool waxtu wa nga koy génnee te li doonoon cosaan ci asaka nag mooy dañ koy jël xos min am amwaalihim sadaqatan ca ki koy jël fokk mu organiser ko waxtu moom koy jël ak bu ko jëlee na mu koy def waaye léegi jël boobu dafa mel ni amatut moom am na nag ay kilifa yoo xam ne ba tey ñañ yilif ña ngay jël ci ñoom asaka di ko nos di ci dimbale ay nit ca ñañ yilif waaye amul autorité boo xam ne ña war génne asaka buñ ko génnewul mu ñëw jël ko comme ni nga xamee noonu la amoon ci ci njëlbeenug lislaam ba tax dégg nañ yi ci xewoon sax eh, ci ay xeex ci ñàkkoo ñu ñàkkoon a joxe azaka ñu ñëw fekk si leen jël ko ci ñoom ci doole loolu nag autorité la laaj waaye ngir wax la rek ne azaka moom li muy néew néew muy 2,5 pour cent bu dee ci asakay ah, xaalis wala muy asakay marchandise buñ génn bu ñu xoolee xayma lépp bu dee mbay dix pour cent bu fekkee ne loo xam ne yàlla mooy taw bu dee lu ñuy roose cinq pour cent yu demee noonu loolu nga xam ne boo xoolee mel na ne bëriwul waaye nag ñi ko war a génn yépp bu ñu ko génnee day daal di bari day daal di am solo te ku ne xam na ne li asaka li ko bokk na ci li ko tax a jóg ni ma ko waxee woon ci njëlbeen gi mooy wàññi coono yi ñu néew doole waaye it mën nañ si nañ cee defar kon ci asaka ay hôpitaux ay fajukaay ay jàngukaay yoo xam ne ñu néew doole dañ fay dem di mën a faju mën a jàng te duñ leen laaj dara wala lañ leen di laaj di lu néew moo tax dañuy wax ne su la ñuy defar ci azaka dañuy fexe ba ña néew doole fuqaraay masaakin yi ñoom ñoo cay nekk priorité ña am alal buñ ñëwee dañoo war a fay maanaam bu ñu defaloon ab hôpital boo xam ne ci azaka lañ ko defaree kay borom alal moom bu ñëwee daa war a fay ke néew doole moom bu ñëwee warut fay ndax moom alalam lañ ko defaree ndax moom moo moom alal ji lil fuqaraay wal masaakin la ñu wax kon loolu euh, lu am solo la lu mat a bàyyi xel la loo xam ne moom ñu ci bari bu ci bu ci nekk rek dañ koy junju ngir ñu xam ne lii bunt la waaye buñ ko gëstoo xootal ko xool naka lañ koy nose danañ dem ba liñ soxla muy di ci financé ay projet islamique mën a nekk la ca topp mooy waqf waqfu moom day lu ama ama am solo te euh, mën a am njariñ lool lool lool man man ko amal jullit ñi te mu mel ne dëgg-dëgg niñ ko war a jàppe ak niñ ko war a yaatale eh, des na te waqfu te mooy yow nga fexe loo xam ne lu am njariñ la njariñ di ca génne nga jël mbir ma teg téye ko maanaam def ko ci yoonu yàlla kenn du ko moom waaye njariñ la nag moom ngay joxe ca fa nga ko bëgg a joxe fa nga xam ne dana fa am njariñ su ma amoon ay moyen dem ci marché Ocass man faa am am magasin boo xam ne dama naan magasin bii dama koy loué waaye li ciy génne nag daara sàngam rek foofu laa ko jëmee kenn dootu jaay yi magasin bi su ma fi su fi jóge woon kenn du ko fa lay fa des kenn du ko donn waaye la ciy jóge kon loolu day mel ne la la yonent bi doon wax ne nit ki bu fi jógee léppam dog ba mu des ñett limaale ca sadaqatun jaariya day dugg foofu mooy sarax boo xam ne dafay daw sarax boo xam ne dafay des njariñ li dafiy des waqfu boobu bu ñu demee ci alquran dañuy wax ne bari na yi nga xam ne suñ boroom da koy digle yépp ci ñuy saraxe ci ñuy def lu baax dugalaale na waqfu boobu waaye dañuy wax ne lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibbuuna jooju dañuy wax ne mooy mooy mooy laay bi gën a tegtale gën a woote ci waqf ndax day mel ne waqf moom la ngay la nga koy def loo soxla lay doon maanaam waqf lu amul njariñ kenn du ko def mën ngaa saraxe loo xam ne dem nga ba jàpp ne fii sax lu ci baree bari ndaw ku ndaay noonu la ñuy def bu ñëwee ba mbuub mi su ñu ne ko sa mbuub mi daa am na am na am na lu ci am na bën bën bu ci nekk wala aw xal kii na ci mu ne kon naa ko sarax nga xam ne moom day mel ne bokkatul ci li mu bëgg lool waaw nga xam day mel ne loolu la ñuy saraxee dañuy dem ba maanaam soxlaatuñ ko waaye waqf moom la nga koy def lu am njariñ lay doon waaw ki jënd ab ab ab oto ne day daw diggante Touba ak Dakar waaye lu ci génne rek ci yoonu yàlla laa koy def loolu dafa doon lu am solo ci lislaam saxaaba yi doon ko def taabiyoon yi doon ko def mu doon loo xam ne bari na réew jullit yoo xam ne liñ taxawal ci wax fu taxawal ko dafa bari lool lool lool ndax njariñul waqfu mooy des gi mu fii des nit ki mën naa am alal di ko joxe mu doon lu baax a baax loolu moom nit ki lu mu joxe moom ay ay yi ma jàng léegi wane na moom ji ab ab dawal la boo xam ne dana ko fekk waaye ëllëg mën na fee jóge la ko yitteeloon ci jëf yu baax mën naa bañ a yitteel ak njabootam waaye lam doon joxe nag su fekkoon ne sàkk na ci loo xam ne da koy def wax waqf moom bu fi jógee it loola moom dafay des njariñ di ca génne di dem fa mu bëgg mu dem fa nit ki mën nay dimbale daara di ko jox maanaam weeru jot euh, tonub ceeb loola bu fa jógee ay doomam mën nañoo ko yéggalee yéeneem waaye mën nañoo yittewoo leneen waaye bis bu nee sama kër ga ca euh, Dakar bu ko kenn donn def naa ko waqf ca la cay jóge nañ ma koy joxal daara diw daara diw daara diw daara diw bu booba moom ba abadan fii daara yaa ngay dox njariñ yi di ko fekk fa nekk feeg daara yaa ngay jox njariñ yi di ko fekk fa mu eh, xool masalan ku ku ku woor ba ngoon nga jox ko mu dog njariñ li ci nekk lépp ci ay tuyaaba ak yiw bu mu xaddamatul xidma dee organise ay ndogu yow nga am alal ne at mu jot dinaa ci def nàngam xoolal li ngay li ngay am ci ay tuyaaba ci ñi nga xam ne ñoo fi dogo loolu nag soo ne woon tey kat man am naa fii ci marché occas place boo xam ne dama koy def waqfu la jógee moom ci ndoguy koor dong lay dem moo xam marchandise mu ca nekk ñu koy ñu cay jaay la moo xam da nga koo lu dañ koo la cay jóge ñu di ko dajale bu koor gi ñëwee ñu ñëw ci muqaddamatu la ne ko ah ki diw kat waqfam ba lii moo ci jóge kon nañ ko def ci dogu kooka moom féeg jumaay baa ngi taxaw féeg ñi ngi fi organiser ay dogu ma ngay am tuyaaba ju koy fekk foofu maanaam ku woor ku nekk ku ca dogu lam am ca koor ga moom ma ngi koy am xoolal gooju tuyaaba ju rëy xoolal googu xéewal gu rëy maanaam waqf moom li ci nekk ci ay njariñ dafa bari lool kon waqf mën na si mën na cee jaare ba financer lu baree baree baree bari ci euh, li nga xam ne ay sémbi lislaam la ca dañuy wax ne bu ñu seetloo ci taarixu lislaam lu ne lu ne daanañ ko wutal nañ ko waqf lu ne wutal nañ ko waqf lépp lu société bi soxla lépp lu askan wi soxla yow loo ko xeeb-xeeb am na ñu am soxla soose te amuñu luñ ko faje euh, léeg-léeg sax danga nga ci liir loo xam ne da lay da nga ciy gis loo xam ne da yéem lool euh, am na ay jamono daanañ defal fu maanaam ñi feebar te amuñu ñu leen di wéttali koo xam ne day def waqf ci loolu nga xam ne dañ ci fay ay nit ñuy seeti malade yi ci hôpital yi di dalal seen xel di leen nemmi xoolal loolu ndax Iyaasul Mariid yi ni mu amee njariñ mais danañ toll jamono joo xam nit ñi doonuñu ko tal nga ne man sama waqf fii bu ma def li ciy jóge ci alal kees lay doon koo xam ne daal ñi nga xam ne bëgg nañoo dem ci hôpital yi di seeti nit ñi di leen ñaanal di dalal seen xel nañ leen cay tox nañ leen cay taxaw nga gis koo xam ne foom àgg na ci sama waqf bii daal li ciy jóge dama bëgg ñi nga xam ne dañoo nekk ci ay barab di fa mbindaanu léeg-léeg ñu toj fab kaas léeg-léeg ñu réeral fa dara léeg-léeg mën naa am borom kër ga ne leen fay leen ma loolu man loolu laa loolu laa jagleel waqf bi nga xam ne ku loolu dal nga dem ñu jox la nga dem jënd dem fay ko nga xam ne kon bàyyiwuñu woon dara lépp lu nit ki mën a aajowoo am na ñoo xam ne sax dañuy dem ba wax waqf ne sama waqf fii lu ci jóge nañ ciy toppatoo xaj yi réer dawkat yi réer amuñu wala ñu tumuranke wala muus moo xam ne dafa gumba muus gumba kon nga xam ne kon nit ki mënoon naa am waqf boo xam ne danaan man sama waqf fii gone yi nga xam ne dañoo jógee seeni daara daw jàng laa ko jagleel waaw saa bu gone dawee jàng nañ ko fa yóbbu toppatoo ko ba gis ay waajuram wala ñu gis sëriñam wala sa xale bu jaax jaaxle xamatoo foo jëm boo réeree ñu yóbbu la nga xam ne kon xeetu lu lu nit ñi aajowoo rek maanaam mënees na mënees naa def waqf ca wax wax waqf ca loola kon ndegam ci yooyu nga xam ne mën nañ ko jàpp yu ndaw lañ mën a defal waqf kon xalaatal ku def wax fu boo xam ne mën nga ne weer wu jot ay millions di ca génne nga ne nag million yii di génne ci waqf bii nañ ma ko defal ci projet sàngam loolu kon jàpp naa ne bunt la boo xam ne dañ ko bàyyeegul xel waaye bunt bu yaatu la Sénégal damay wax ne Cheikh Mamadou euh, Mourtada yàlla yàlla yokk leeram ca taasu ci barkeem yitteeloon na ko lool nit ñi xam waqf di ko jëfandikoo ndax njariñ li ci nekk ba tax moom bi mu taxawalee euh, daaraam yi Al dafa créer ay waqf yoo xam day jàppale daara yooyu aw awqaaf yuy jàppale daara yooyu kon société yi mu taxawaloon taxawaloon al azhar naq la mooy al transport azhar boo xam ne ay pour la azhar azhar même sax boo xam ne pour la doon euh, liggéey ci wàllu carburant yooyu yëpp taxawaloon na ko ngir la cay jóge mu di ci mooy ay projet yoo xam ne aw awqaaf la yoo xam ne loola dañ la cay génne day dem ci daara yi nga xam ne kaar yi dañ ci doon bind waqfu lillah ñu baree bari dañoo jàppoon ne ak léemaay la di ko bind seen i njaganjaay di ko bind ci seen kaar ngir jàpp ne ak léemaay la xamuñu woon waqf mooy lan nga gis kuy bind ci bind ci otoom waqf ci kanam ndax gis na ne kaar suñ murtalaa yi ñu bind nañ ci waqf lillah moom xamul luy waqf lillah nga xam ne kon promotion la doon defal waqf ñu baree bari dégguñu ko dégguñu ko bu baax waaye jàpp naa ne ñu ngi koy dégg xëy na mën naa am ni réew mi tëdde woon ak luwaay mu yombalutoon waqf borom alal di def waqf ndax maanaam sa alal ji boo ko tegee it maanaam dañuy xa maanaam euh, luwaa yi xamul waqf bu boobaa da nga koy war a fayal ay impôt wala nangam nangam yu bëree bëri mais léegi avancement am na ndax depuis 2015 ci Sénégal tëral nañ loi waqf maanaam euh, sos ak kuréel goo xam ne mooy saytu waqf ci Sénégal mooy haute autorité di waqf am na léegi am na loi boo xam ne 2015 lañ ko. lañ ko wootee assemblée nationale ba nga xam ne léegi wax wutal nañ ko ay yoon wutal kon ko bépp borom alal bépp borom entreprise bépp borom alal mën ngaa dem wut wàq fu ñu bind ko mu normal nga xam ne léegi dara jaxasoo du ci am ba abadan la cay jóge nekk sadaqatun jaariya di la fekk fa nga nekk. loolu nag bu ci ñëpp bàyyi woon xel ba sax xam ne Sénégal wax dëgg yàlla bari na ñuy def ko ci lu baax lool lool lool da gis koo xam ne dana la wax ne li muy def ci lu baax dana ëpp milliard ci at mi. dina ëpp milliard ci at mi waaye mën naa am loola ma ngi koy def lu baax la ma ngay ma ña ngi koy bindal fii misaani xasanaatihi waaye ndax ëllëg njabootam moom danañ am maanaam yittewoo googu moom mu doon yittewoo su fekkee nag milliardam yooyu jël na ci lu ma juróomi milliard yoo xam ne moom da koy wutal dara loo xam ne lu fiy des la dara di ca génn loolu kon ba abadan moom dafay nekk kon loolu bunt la boo xam ne buñ ko gënee bàyyi xel gën koo gën koo gën